nga ne ndax journaux yi neex na. waaw mais am na ay questions yoo xam ne elles sont fondamentales. quand mmh, même parce mmh. que bu ñuy wax affaire li xew Niger CEDEAO mmh. ak euh, risque de conflit yi nar a xeex foofu. question bu am solo la parce que Niger a nga fële de. mais Niger bu amee problème day ñëw ba fii te xëy na fii lañ koy gën a yëgee. moo tax man euh, am na léegi ñetti fan dama defoon benn communiqué en tant que présidente euh, du parti Car Leneen mm. coordonnatrice de la troisième voie ma ni mm. ñun dañuy privilégier la voie diplomatique parce que xam nañu ni ay bu amee ñu ngay mujj ci taabal ni ma ko doon waxee pour le dialogue au Sénégal noonu laa koy waxee fii te boo gisee CEDEAO ñoom dañu am seen i lu ñu wax en 1975 ci seen pacte bi Abuja dañu ne dañu bëgg a euh, suqali koom-koom ci sous-région bi te lool il faut que xel yi dal. xol yi juboo booloo. Mm-hmm. kon boog bu ay amee dañuy waxtaan te ku ci nekk état bu nekk da ngay fonk sa dëkkandoo. c'est très important euh, di waxtaan di sottante xalaat donc di utiliser la voie diplomatique mais fii ñu ne dañuy dem dal ci benn réew xamuñu ne bu ñu dalee ci réew ma peuple ba la ñu dal peuple bi est innocent deful dara mm-hmm. lu tax ñuy dal ci kawam misère loo ko alors donc ci laa bindoon te gis naa ni intellectuels yi nekk Afrique et jaspora ak ñeneen ñu ngi def ay pétitions. Mhm. pour wax ni nanguwuñu xeex am. voie diplomatique la ñu la bëgg man démb sax am na bu ma xaatim ci pétition yi. Mhm. donc loolu euh, je crois que war nañ cee insister bu fi kenn indi xeex. te xeex dafa xew yi nee naa leen. Mhm. du yëfi du mbirum doole yaram. ak ay armes. doole xel la xel la.